remporté Mamadou Bool euh, Fatou Diouk Mamadou mhm. euh, daan remporté Coupe de France euh, bi ñu doon joué ci week-end bi moom mi fi nekkoon capitaine u gaynde yu jigéen ñi mhm. nee nag jeexal na carrière am foofe ca France mu ne kontaan na ndax moom mi nga xamante ni gis nañu ci week-end bi am na tawaay bu am solo ñaana lu tax ñu koy woowee ñaana lañ koy waaw comme yow jé jé jé. jeez jeez. ci Thio. Thioz. 2017 trois ans après Fatou Diouf bu ñu ñëwee yàggul ci mois de juin bi rek la dem rejoindre jóge fële ca kan kan boobu sax d'ailleurs la ñu dajal final daal di koy gagné mu nekk match bu am solo. ci man mu nekk loo xam ne nii. Euh, euh, vraiment xaw ma sax naa ko mën a nattee fii laa commencé woon sama carrière dem Asie lu dul sant borom bi te di ko gërëm di aussi sant ñëpp ñi nga xam ne soutenir nañu ba fi ñu toll nii internet bi ñu ngi gis vraiment message yi mu ngi doon ñëw sama famille ñaan yi maa ko doon sentir euh, aussi ngeen jàpp si bu baax euh, donc vraiment euh, sant ak gërëm di ñaan yàlla saison bi ñuy waaj a dugg incha allah samedi prochain mu nekk la même chose. moom moom Fatou lu tax muy jeexal carrière moom xale la. non non non club yi nga xamante ni ci. Euh, hmm. deuxième zone bi lañ nekk di yéeg di góorgóorlu bu baax. mu jóge France demoon nag def euh, par exemple bi mu may Asie tamit dafa euh, ku ku vraiment ku xarañ la te mën lool li muy def. Hmm. macha allah ndaxte am na ci taxawaay bu am solo ñëw na fii invité nañ ko fii wala par exemple ay MVP dina jël ay meilleurs joueurs yoo xamante ni war bokk ci ñi gën a ràññeeku ci saison yi. moom Fatou Diouf ren jii day day d'ailleurs dafa débuté woon ak Kaan ji gannaaw ba mu jógee fa daan di dem ci période ànd bi mois de juin bi daal pour lu ba fexe ba club bi euh, daal euh, yu bari mais bokk gisee jigéen bi def sport euh, ah. surtout bu baax wax naa ko capitaine équipe nationale bu boole la woon gannaaw quelques années yoo xamante gis nañ ni dafa retiré ci équipe nationale bi mais moom Fatou Diouf am na taxawaay bu am solo wax na ko jeexali carrière am ca France dafay nekk loo xamante ni waaw sport doon basket xanaa gisoo ji basket. ñi armation sport ba dañuy am condition mais bari na équipe nationale mën naa am fàtte ñu xam ma waaye sport moom wax dëgg yàlla moom. <laughs> équipe nationale euh, Lyon yi basket. ñoom ah. am na ci yoo xam ne ñu bari am nañu ay doom. bari na ay basketteuses yoo xam mais doo ko xam. ba si di nga ko xam mais de. Mhm. oui ma j'étais une grande sportive quand même. ça m'a beaucoup permis de. lan la doon def def naa natation def naa oh. basket. et j'ai fait un peu de self défense. seen ndànk de fal ndànk self défense la mooy suñ lay attaqué nga xam nan ngay riposter pour protéger sa bopp suñ la jibee paaka wala yu demee ah. nga xam comment eh, yow fi ne ni boo doon fas yéene mbéj yaasin mi xam nu muy def ba rek la la kii di mu xam njëpp kon yow da ba ñaandee ba ma ko su ma attaqué woon danga may danga may continuer bi wala nga wax ma lu ma def rek <laughs> di ma di ma fi def pour ñi pour ñi ñi nga xamante ne ñi ngi seetaan du gis ngeen yaasin nii ak buuraayam du gis ngeen ko <laughs> bu leen ko jege léegi par exemple su ma doon dóor nii nan ngay fan téye si loxo bi ngay téye wala. da ngay def nii daal di tourner wàññaar. Eh, waaw démonstration bi su nekkoon sama courbier bi su nekkoon sama tànk bi laa yëkkati di ñëm ci yow. lu nekk am na nuñ koy téye. waaw mais su wéetee après backstage <laughs> xalaatuma ko. moi je travaille demain moi sama yaram bi yii ragal ay. dóor ak ay ay bëre yooyu dafa baax parce que mm-hmm. self défense veut pas mm-hmm. professionnel nga si karaté quoi que ce soit mm-hmm. important. oui on ma mais li moom mais li moom voilà macha que je veux sa euh, li ma bëgg xam mooy est mon âge vieille que je suis. je peux mun na dem jàngi euh, self défense. tout le monde peut faire. bien oh, sûr soo se protéger en fait. kii bi gis nga lu am fit. mbaa du naar non pourtant nag pourtant nag ba loolu gis nga boo ko defee daf dafay am leneen lu muy def sa parce que nit mën na nekk di ci non non en fait déedéet ça te permet de travailler sur toi de travailler sur euh, daf lay defal te nga am réflexe tu peux le faire euh, pour se léegi na sa xol nga mën a nga mën il n'est pas forcément dit boo ko defee rek da nga war a xeex souvent ñi nga xamante ne ñoo def lu mel ni self défense lu mel ni arts martiaux dañuy rafet xol dañuy lewet ba nga xamante ni mooy loolu am na ki nag ñu mel ni mat dama daan def taekwondo à un moment donné laa jékki-jékki rek bàyyi mais mais toj xol moom yaakaar naa sport c'est vrai baax na ci mais yenn béréb yi aussi boo fa jaaree xol moom il faut mu toj genre RFM moom boo fa jaaree xol moom day tojoto <laughs> loolu baax ak sport bi c'est c'est important ñi taekwondo la ñu def man dama doon daw temps yi ma nekkee woon euh, dama doon daw mais mais léegi mënu ma sax def euh, un kilomètre c'est c'est c'est terrible mais c'est c'est comme ça voilà kan si bi jagana biñ doon kii moo dàq daw dàq fee ci àdduna ma maa gis li toujours important euh, di ko def pour moytu ndiku yenn violence euh, yi nga xamante ni